mbokk yi dal leen ak jàmm ay fu mi jëm ngay am yéenay wax boo gisee li fës si xët wu njëkk Les Échos mu jéey ju doy joo yoo xam ne mu ngi amee si diwaanu ngàpparu lii kay mbir mu yéeme dëgg la yéenekaay bi xëy di ko nettali xale bu góor bi nga xam ne ndax sax est-ce que mën nañ ko wooye gone gu góor ndaxte moom li muy dund moo di mbirum góor jigéen moom moom lay dund dëgg nag tax yegg ba mënatul dara ki nga xam ne moo di soxnaam tax muy laaj ki nga xam ne moo di rakki baay ja ko ñëwal ma jox ñaari million ak lu toftal nga tëdd ak sama soxna ndax mu am doom nekk mbir mu yéeme moo xam te ni bii la raxas ginnaaw moo ko gën a doy waar ndaxte ki nga xam ne moo dund mbir mu góor jigéen tudd Moodu rek bàyyi tudd Abdou ñoom ñaar ñi leen jotali sax weesu na loolu ndaxte ki nga xam ne moo di Moodu ndekete yow mu ngay dund ak jàngoro ji nga xam ne moom la ñuy wax sida wàll na ko sax soxnaam soosu nga xam ni moom la bëggoon rek bàyyi tëdd ak moom moom mii mbir bi bi mu kalaatee ba mu yegg si kanamu sàndarma yi mu ngay weddi tuuma ji nga xamante ni bii moom la rek bàyyi teg sa ndodd la mu ngi naan mbirum xaalis moo leen jotalee waaye yéen yëglekaay bi mu ngay wax naan moom mbir mi bàyyiwu ko ndaxte ginnaaw ba it ba soxna sa si kër ay moom mi mu ngay wéy di tëddee ay xale yu góor yoo xam ni ab xaalis da leen jox ngir yaatal jàngoro ji nga xamante ne bii moo ko dal di mbir mu yéeme moo xam ni moo am foofu ci diwaanu Ngapparu Ousmane Diallo moom du góor jigéen waaye day dóor jigéen sore wuñu sax daanaka moom mi nag li ko joteleeg soxna si ñuy wax Sali Samb bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi di L'As Quotidien ñu mu ngi wax naan ñoom ñaar dañ doon dund maanaam coroom la woon dañ doon génn ñoom ñaar ginnaaw bi nga xamante ni bi nag soxna si nee na ko ñu bàyyante si la ko meree lool jër ay kurpañ dóor ko ko soxna si gaañu lool ba ñàkk ab bëñam loolee nag mujj si kanamu attekat yi ndaxte moom mi nee na soxna si da ko wor ndaxte ñoom dund nañu toll si ñeenti at te it ndekete yoo kam doon njëkk génnal ñoom ñaar bàyyante wuñu moom mu ngi del siwaat si coow li nga xam te ni bi moo judd si ginnaaw réewum France bi nga xam ne indi na fii jaasi ji nga xam ne nee nañu Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko moomoon yénn kaay bi jox kàddu gi professeur Abdoulaye Sokhna Diop mu ngi naan bii la histoire du dëgg moom archéologue la ak muséologue nee na histoire bi nga xam te ni bi moom la ñu nasaraan yi bëgg gëmloo dara wéeru ci ndaxte ki nga xam ne moo di El Hadji Omar mësta am jaas yi mësta it dundee ay ngànnaay ndaxte moom xam ak diineem képp la doon géré kon jaasi ji nañu wut keneen ku ko moomu waaye Cheikh Omar moomu ko meneen Omar di Cheikh Omar Anne moo fës si xëdu njëkk Le Quotidien moom mi ngi naan ñi nga xam te ni bii ñoo am bac yees ñoom ñëpp la ñuy orienté nañu xaar rek te bañ a yàkkamti ndaxte li nga xam te ni bii moo jur tool yi dëgg nag moo ñëpp la ñu bëgg yóbbu si université publique yi te daanaka xajewuñ fi mi ngi naan dinañu daloo ay bâtiment yees ak li nga xam te ni bii moo di ay pavillon waaye loolee yëpp yéenekaay bi ay abri provisoire la ko jàppee la soleil naan nañu xaar rek fii ak fukki fan ak juróom képp kuy bachelier dinañ la ci université publique yi université su réewut ak rëbës waaye am na koo xam ne mu ngay dox di tenkem ndànk-ndànk di wuti rëbës buñ sukkandikoo ci yenekaay bi nga xam ne moo di La Tribune Bougazelli mu ngay dox di tenkoñ wutali kaso bi nga xam ne moo di rëbës ginnaaw bi nga xamante ni bi gàdd nañ ci ndoddam lu ñuy wax garde à vue foofee ci de recherche bu Colobane ay secret ci démission bi nga xam ne Bougazelli démissionné na ko foofu ci assemblée nationale mu ngi naan am na loo xam ne nguur gaa ngi koy nas di ko nësër nag di lëndëmtu foofee ci diwaanu Géejawaay mu naan Bougazelli daanaka benn tànk baa nga sa biir kaso ba libération moom xëy yaatal toj-toj yi nga xam ne dëgg-dëgg moo waral ki nga xam ne moo di seyt Seydina Fall Bougazelli ñu tudd ko ci mbirum faux billet mu ngi naan dëgg ab mafia bu ñu organisé nag moom la gendarmerie teg loxo ginnaaw bi nga xamante ni bi teg nañu loxo ku ñuy wax Samb moom mi daanaka moo yoole Seydina Fall Bougazelli ndaxte ñoom gendarme yi bi ñu ko jàppee moom daa nangoo collaborer ak ñoom woo Bougazelli seen téléphone ñoom ñi ñu dil ak moom ba jàpp ki nga xam ne moo di Bougazelli 46 millions euros yoo xamante ni bi bëggoon na koo jox gendarme yi ak mercure bi koy raxas moom Samb yoolee Bougazelli ñu jàpp ko mi ngi naa nit jàppale na koo xam ne doon gérer ab restaurant boo xamante ni bii daanaka weccet yi mu doon jox ay client yëpp ay faux billets la woon enquête yéeni kaay moom naan jamono ji ñu koy jàpp kay gendarme yi lépp la ñu filmé bi ñu ubbee otoom ba mu gis ne ay gendarme yi lañ dane wuy yàqu na dem si xët wu njëkku la soleil ak dem si yàlla si collègue Senghor mi nga xam ne moo génn àdduna si ayu bés yi foofu si moom mi fi nekkoon soxna si njiitu réew mu woon Léopold Sédar Senghor yéenekaay bi mu ngi xam ne dinañ ko indiwaat fii ci réewum Sénégal ci sëg yi nga xamante ne bii fa la borom këram di Senghor ak doom ja di Philippe fa lañ leen denc dinañ ko denc moom ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëgmal fii ci diwaanu Ndakaaru jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah